dama xamul yow buñ la waxee waxal looy wax yow suñ la joxee kàddu ne la waxal looy wax yow bu nit ñi di wax gauche yow ngay wax jëm droite lan moo fi indi ay sonko du sëriñ du wàlliyu xam nga chaque jour man maa ngi laajte naan est-ce que Cheikh Yérim mi amul problème personnel ak sonko te man dafa ma dafa ma jaaxal yow sonko bi ngay tudd tout le temps ci plateau télé yi man sonko laa mosul gis moom mu toog ba tudd la te pourtant ay nawle ngeen mais mosuma gis mu toog ba sax gestu la jox la importance mais est-ce que nag doo doo doo doo def taxaw job maanaam nekk ci sa bopp te jéem a xool lu avancé dëkk bi te xam ne yow war nga bokk ci ñuy développé réew mi yow da mais sans autant que toog di di yaama ko baama ko ci ay plateau télé maanaam mbooloo mi ko yàlla dénk moom moo moo mo mo nga mënta supporter ni ko xale yi joxee bopp yow bu la ku la dégg ngay wax man du ma comprendre quand même temps bi fi xale yi génne di la attaqué génnoon fi sax def vidéo di la défendre mais dafa yow yow niroo dama xamul yow buñ la waxee waxal